auditeur leen jàmm dal leen jàmm ci li gën fës ci ëtt yëglekaay ñu commencé kook direct news mu del siwaat ci chaise Macky bi nga xamante ne di di ñu xamal ni coup dooleel ko di ko xelal saa su nekk ne mën nga nekk plan B wu Macky bi def ci ay révélation yu rëy ne nekk Mahmoud Saleh moo engagé wu fas yéene jël Idrissa Seck mii teg ko ci chaise Macky Sall en tout cas bëri nay conséquences yoo xamante ne

ci point rouge bii en tout cas kenn du nguur gi te li wérte wër moo di nguurug Sénégal fekk bàyyiwul naqaral ji muy naqaral askanam te jéemul xeex xale yi nga xamante ne dañ leen di sàkku saa su nekk sàccum suuf gi ne tulleeg man la ci dëkk bi lii fekk xeexu ko du mën a jóge ci point rouge bii ñeel ak ak yelefu sénégalais yii vox populi ne Seydou Gassama kay génn na ni démb ne yéey mooy avocat wu LGBT yi Seydou Gueye mel na kuy défendre góor jigéen yi ci bi tey xamle ne kenn ku nga bëgg-bëgg ak la nga ñi ay citoyen lañ comme ñëpp kon nag dañ bi na de Seydou Gassama fas yéene défendre droit góor jigéen yi ne par force nguurug Sénégal dana jéem fexe ba ñu respecter seeni droit l'observateur dalal colonel Abdou Aziz Ndaw mi avertir nguurug Sénégal ne bu ñu moytuwul la xew ca diwaanu Mozambique dana xew fii ci Sénégal ndax Sénégal bëri na ci ay kuréelu diine yoo xamante ne ni yu yees la te ñu samp ko ci réew mi kenn xamul fan lañ jugee la leen di xam mu jugee ko ca bitim réew ñu leen di financer ca nguur gi yëgu ko fi toll nii nag mbiru terrorisme bi ci réew mi génn guñ ci mball gi ndaxte ni kenn xamul fan la jugee te ngi ci réew mi bu ci nguurug na dal ci ci réew mi Walf Quotidien moom dalal Mamadou Diop Decroix mi yekk li mel ne nguurug Sénégal gii tey xamle ne Sénégal moom amatul démocratie te bu ñu nekkoon ci dëkkub yoon manifestation yii ñu jógee waroon a tax nguur gi démissionné bu yàgg askanam lii moo tax population bi génn nekk ci mbedd mi di manifester guddeeg bëccëg nguur gi ba ji gi nanguwul li ni Sud du Quotidien xeeñ neexul de lii xeeñ mooy troisième mandat wu Macky Sall bii te yoon wi commencé nañ ko tracé ndax waa APR yi commencé nañ seen campagne meeting yi mel ne tulleeg man ci dëkk bi Sénégal gi yépp foo xool ñoo ngi meeting waa APR yi di recevoir ay transhumants li moo tax ba yéenekaay bi di jox xabal di yoonu nag léegi ak naqar gi Sénégalais yi nekkoon ba tax nañu génn ci mbedd mi fitna gi feesoon dell ci mbedduk Sénégal waa Sidiki Kaba xanaa daa réer lan moo taxoon mën a tekk tekkaaral waxul ci coow lii toog ba tey jii fas def bilan gendarmerie lii moo jar a laajte en tout a laajte kay dëgg moo di combat Modou Lo Modou Lo Ama mbaa surprise du ci am ndax suñu làmbu def na ci ay révélation yu rëy yéenekaay bi fekk Ama Baldé bi nga xam ne Modou Lo nee na ko dinaa la corriger duma la daan la Ama Baldé di tontu xarañ loo di ko xamal ni corriger woo naa la naa la kawoo boo nee danga may daan xamoo li ngay wax ndaxte boo may jegee ma lay kawote ki rasulillah doomi Pikine na de